bon ana chef de quartier. jógee na. oh. baa soriwul. ah je sais pas génn na daal suba la génn. Oh. dommage ah. bon euh, ana kii Eva mu ngi fi. Eva nekk fi tam dafa génn. je pop pop pop. mais bon baax. et je seetlu naa la fan yi yëpp yaa ngi ñëw ci kër gi mhm. boo laajtee paa bi bu fi nekkul nga laajtee Awa lan la sa diggante waaye <laughs> bon c'est normal na nga nga laaj question bi parce que euh, chef de quartier moom expliqué à ce que man su ma fi ñëwee ma fekkul donc ma laajtee Eva doomam quoi donc parce que moom moom ko expliqué quoi bu ko defee mu mën ko expliqué li nga xam te ne moom moo yëkkati bu ko defee mu mën ci taxaw mais c'était juste ça loolu donc moo taxoon ma koy laajte mais du dara ah. yow daal xam nga nuñ ma def ma dem kër ma dem këram mu jàpp ma xolal xeex ak man histoire ak man daq ma këram daal di may sànni biteel sama diggu ginnaaw gaa ngi nii di metti sama tànk baa ngi nii moom moom ma di ko déri waaw moog jabaram nag la jabaram ñëw na fii ma wax ko yàqu ko lu mel ni mbelalaan ndax lépp moo ma jañse ci kaw jabaram man nag bàyyi naa ko tey bàyyi naa ko suba bàyyi naa waa këram waaw nag maa ngi ci sa ginnaaw suba ba géej gi fer nee naa ko nag sama sama nijaay moom mooy toog ci sées bi waaw naa laa laaj benn laaj parce que man xam nga samay wax du bari parce que wax dëgg yàlla man maa ngi sa gannaaw rek man moom comme maa boot mëne ma kër mënu maa engagé engagement bu metti mais dama la doon laat lan ngay wut doon wut kër juuf waaw dañu jotewul lu dul jàmm ak salaam. waaw ndekete juuf a ngi may pareel. ndekete jabaram jaxase na maa ngoon kon yow dem kër Diouf. pour waxtaani pour wax ko ni daal moom nga àndal comme ni nga ma waxoon fii. moom mosuma wax ne Diouf moom laa àndal. da ngay danoo toog fii nga ni ma nga ni ma boo nee da ngaa bëgg chef de quartier bi da ngay wor Diouf workat nga ma ne la waaw ndax juuf li mu nekk ci quartier bi yàq la. juuf bu demee ba jël quartier bi def koog lam mel ni titre foncier la monsieur baa ngi ñëw. awa n'est pas gis nga beneen yoon see boo ñëwee boo fa fekkul paa bi nga dem mais bu laajte waat awa gis naa la ngay dugg di génn di lambar lambar yi ci sama kër mel ni benn ñebbe ci cin bugguma ko déedéet les entrées et sorties là ko sama kër mais maman non écoute déedéet dégg rek li ma la wax non dégg naa li nga wax mais da nga may déglu tamit mais man su may ñëw fii vraiment man chef de moom moo ma yëkkati mais chef de quartier moo ma boole ak doomam ni ma boo ma fekkul fekk fi sama doom mais où est problème te tamit aussi maman man man ay Eva yi man waruma leen si tu as bien saisi man boo yu gën a mool Eva booy ko gën a kawe booy ko gën a eh, jongama ñoo may loolu ça n'engage que toi bu dee ay booy dañ lay seet ak patati patata c'est pas mon problème loolu du sama affaire mais dama la bëgg wax ni Eva c'est pas pour toi dégg nga. mais en tout cas man ñëw ma pour. yow boo amee ku mel ni Eva doo daw ba non mais tamit sa puubi kaña yi. waaye fatama waay yow génnal fii sama kër donc léegi eh, déedéet déedéet dama léegi chef bu ñëwee ne ñëwoon naa fi mais sa doom Eva moom sincèrement par moment waaw yow dimbale ma ngay xuutar xuutar yi di xaw ma blouson nga sol xaw ma ak sa yu xonk cim rouge danger yi cim vanifié loolu xam naa ba léegi yaa fo dem ñu lay sànni ay butéel ak di la dàq juuf nag na xam ni yor na ñaari programme ñaari programme yoo xam ne xamul fu mu koy wàcce ndax yor na programme quartier bi dañuy xool ku ñu neex ñu jox man quartier bi sax mën nañ maa bañ a fal waaye juuf moom dootul falu ak programme dala sànni butéel manatol xaw ma nee na manatol lay jël ñëw fekk ñu cocktail molotov yi muy defar di ko jóor kër yi ak di ko sànni nit ñi di ñu xoqatal Diouf da koy arrêté moom da lay def waaw nee na nag dina ko def dina ñëw ci kër gi taal ko kër gi ndax jabaram dañoo toog di wax ma daan ne ko waa ana ana ana jàmbaar mu ne ma mi ngi nii man ko ah sama nijaay. jabaram ci lay ñibbi ndax jabaram c'est un malien. mu ngoog day ci lay ñibbi Mali. te te nañ nañ def ba ma a génne carte d'identité am. waaw moom nationalité bi mu am fii nationalité false la. amul bu baax. ak autorité yi joxuñu ko ko dañ ko koo defaral noonu rek. ba pare nag moom moom dëbb naa ko fi ba mu mokk yow daal bul yeboo boo xel sa xol sedd man maa changé man man maa lay wootele maay topp sa ginnaaw ba mu neex maa ngi ci sa ginnaaw takk sa sama ndigg ba mu dëgër waaw yow boo tëddee nelawal fauteuil bi yaa ci naan dégg toog ma woo samay morom woo samay xarit ñu ñëw toog yow bu la dara naqari waaw mi ngi noonu maa ngi dem ci xër gi lii laa ni woon naa la ko wax waaw dama noppalu rek yow noppalu rek te bu ci waxaat dara bu fa demaan nag ci yàlla yàlla ay ay ci potu mbuur da weer ba mu fenn mu taw ca kawam da ngay weer ba mu fenn mu taw ca kawam xam sa bopp gën ku la woon naax la ko gis nga nja gis nga billaay way way amatul léegi ñoom njaga mbay mën a way juuf da ngaa weer ba mu fenn nga def ni day wow yàlla taw ca kawam te xamoo sa bopp njaga mbay yow la way yàpp sama jabar di nàmp xel mi mu mu may contre tey mu dem fa di leen dimbale ngeen yéen yéen la la tax ngeen sànni ko cocktail molotov ya sax xamu leen quartier baa ngi ci sama loxo